dañoo ñëwoon fii ak keesuwaay yi de manière spontanée muy parti politique muy mouvement citoyen muy transporteur muy commerçant ñu jógee si département bi jóge un peu partout si Thiès donc pour wane suñu naqar ci Macky Sall ni mu salfaañee suñu démocratie ñëpp jàppoon nañ ni dimanche 26 moo war a nekk élection tey ñu ñëw Macky Sall dañu wooteloo dialogue boo xamante ni conseil constitutionnel newoon na ko demal nga xool délai bi gën si délai yi pour nga organiser élection yi donc tey ñëpp gis nañu tey euh, deru Sénégal nan la nan la ñaawee si àdduna bi nan la ko Macky Sall gàqaale donc ñi ngi koy ñaan si nu mu gën a gaawee nit ñi dem si àll bi wuti ay parrainage jël ay moyens def ko ci dem def ay pré campagne rencontré nit ñi sénégalais yëpp jàppoon ni tey 2025 2024 incha allahu rabbi février nañ def élection mu xëy benn bis ne repoussé na élection yi ñu def recours conseil constitutionnel ne leen décret bi nga jël baaxul dellu ci ginnaaw